94 Walf Sénégal dellu si na di leen char di char mboolem fal 94 Walf Sénégal seen analyse chronique yi nga xam ne ko defal saa nekk ci réew mi ak bitim réew jaajëfal nañ leen char nañ leen way leen di topp fal 94 Walf Sénégal charé nañ leen ci ajjuma ji voilà weekend bi dugg na ajjuma moom bu ñëwee rek weekend bi daal di dugg samedi beeg dimanche beeg yooyu voilà ñi nga xam ne moom dañuy def ay petit voyage quoi di dem ci dëkk dëkkaat yi ay bu bi fekkoon ñu defar Linguère ba mu rafet defar Saint-Louis ba mu rafet defar Casamance ba mu rafet waaw dem bi ak dikk bi weekend oh dem bi yomb lépp dem ñëw voilà defar Thiès foo dem oh. moo tax boo demee ci réewu Maghreb yi naar yi dañuy voyage rek surtout weekend bi nii bu dugg see nii non parce que mën nga fu la neex mën ngaa dem ci bis bi ñëwaat ci bis bi voilà mën nga wër région yëpp voilà parce que voilà foofu demukaay yi dëkk yi rafet oh kañ la Sénégal dégg foofu noonu rek waaye coow rek voilà marché bi nag euh, autorisé nañ ko gis nañ ñoom Guy Marius ak ñoom Thiat ñu ngi lancé ay petit vidéo yoo xam di di lancé pour nit ñi xam ni seen marché boobu nga xam dañ ko woote euh, autorisé nañ ko bu ko defee rek voilà marché bi nag li ko waral mooy. ñi nga xam dañ leen jàpp ngir politique voilà dañ leen a jàpp ndax politique voilà jàpp naa ne loolu ci la bokk ak yeneen ak yeneen yoo xam ne ni euh, euh, euh, ci la bokk voilà en tout cas daal gis nañ ñoom gi Mari Sagna ak ñëpp rek ñu defar ay ñu def ay petit vidéo yoo xam daal ñu koy lancé lii di askan bi pour ñu xam ni marche bi autorisé nañ ko hmm. en tout cas daal xam naa ne Sénégal li koy defar seq taabul rek voilà. bu ko defee nag ñi nga xam ne nag xam nañ ni ñoom mënuñu ngir yàlla ngir yàlla nañ seppi seen loxo ci réew mi te dem ca derrière bu ñu waxee nga xam ne ñii mënuñu bu nu jëfee nga xam ne ñii mënuñu maanaam amul amul lenn loo xam ne rek dina wane ni maanaam ñi mën nañ voilà ñooñu nag dañoo war a xam seen bopp nag dem derrière bàyyi ñi man ñu doxal waaw parce que wax ji bari na coow li bari na te daanaka ñi ëpp li ñuy wax. nekk di feeñ ci ay site internet di wax rek surtout ñi nga xam dana ay borom xam-xam xamuñu dara waaye ñi nga xam ne ni ñu bari xam-xam lañ ñoom yaakaar naa ne am nañ leneen loo xam ne tal nañ ko lu dul nekk di nekk ci ay plateau ku di tooñub jàmbur boo xam ne ni yoonam nekkul ci yow voilà parce que moom bu fekkee nekk borom xam di ko incarné soo demee ci plateau war nga wax loo xam ne ni dix-huit millions habitants yëpp buñ ko déggee dañuy xam ne yow mi macha allah voilà da ngay doxal réew mi mais yow da ngay dem ci site internet la nga fay wax da ngay wax ba ba ba géex daanaka li ngay wax kenn mënu cee jëlee benn njariñ benn benn benn njariñ xanaa loro loro ci rek te yow da nga ciy loro yow nga xam ne parce que nekk ci ab tele wala ñu invité la ci site internet nga nekk ci ab jàmbur di wax ba di wax di wax di wax mais loolu lan la mën a indil réew mi loolu delloo ko naw voilà euh, ñi nga xam ne nag ay waxkat lañ xam nañ seen bopp bu baax a baax ñi nga xam ne dañuy incarné ñoom borom xam-xam amuñu xam-xam voilà mais nag am na ñoo xam ne ay borom xam-xam ñooñu moom bu ñu waxee dañoo war a wax bu ñu warut a wax dañoo war a wax voilà ñooñu kot ñoo yella wax mais ñi nga xam amuñu dara yi xam-xam nañu dem toog yi fële.